maa koy taw ndax Doura bi nga xam kon ñu tontu boobu rapidement première question bi nee na Arena Pastef loué wu ko du looloo loolu la sénégalais yenn yi wax effectivement man bi may nekk Chine coow loolu dégg naa ko ñu bind ko ci réseau sociaux yi wax ne Dakar Arena dañ koo aal waa Pastef parce que Dakar Arena euh, euh, waa Sojib dañ koy loué mais loué wuñ ko Pastef xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne gars yi lu leen neex la ñuy wax ci loo xam ne ci seen xalaati bopp rek lañu koy wax ci seen waxi bopp yoo xam ne amul fenn fu ñu ko teg fa ma toog à l'époque ma ni regarde-moi ces mensonges réew mi dafa soppeeku rupture moo fi am fii amul kenn koo xam ni man maay directeur général bu SOGIP SOGIP mooy gérer l'ensemble des infrastructures yi ma leen wax sànq ne mën naa andi retour sur investissement te Dakar Arena daf ci bokk parce que xaalis bu bari la ci état bu Sénégal def Dakar Arena boobu képp kuy sénégalais yow ak man ak président Ousmane Sonko ak euh, ak premier ministre Ousmane Sonko président de Pastef et le président de la République Bassirou Diomaye Faye ak koo mën a doon ñun ñëpp ñoo ci yem parce que alalu Sénégal lañ ko tabax kon ku taxaw ba koo jël da ngay ñëw ñu wax la yan condition lañ koy joxe événement yëpp bokkul niñ koy joxe Pastef biñ ko soxlaa danoo jaar fi ñëpp war a jaar man heureusement. parce que man tout ce qui est mise euh, exploitation tout ce location des infrastructures man du ma ci dugg dafa am directeur bu ko yore la directrice de l' moom ngay adressé correspondance ne ko damaa soxla telle infrastructure muy centre des expositions muy Dakar Arena muy le marché d' intérêt national mu la gare des gros porteurs loo ci soxla danga naan ko lii laa soxla bind ko bu dee yi SEMIC di gérer SEMIC moo koy gérer bu dee ñun li nga xam si ñun ñoo koy gérer ñun Euh, waa SOGIP directement ñu à travers la direction moom ngay bind mu jox la ko man dugguma ci sax far parce que tout est normé dafa am ay normes pour ñu jox la ko par mètre carré lañ koy luy ñu calculer la par rapport ak nombre de jours yi nga bëgg ak temps bi nga fa war a def ak lang fa war a def fa ñëpp di jaar fa la waa Pastef jaar ñu loué leen dañ leen koo loué dañ leen a loué infrastructure de président de Pastef Ousmane Sonko am na ko ma rapporté ni nee na seen arena bi dafa cher mais dafa fay firnde baa ngi nii contrat baa ngi nii ñëw contrat baa ngi nii contrat bi nga xam ni moom lañ leen loué Dakar arena ca laa jëm leen yàqal le contrat est là sama paree dama leen jox facture bu leen yàkkamti daam mbóoj la léppay leer yaa ngi may dégg contrat baa ngi nii mën naa leen ko jox ngeen photocopie contrat bi nga xam ni moom la SOGIP loué Dakar Arena waa Pastef est-ce que leer na contrat baa ngi nii man euh, mi ngi nii comme man dama demoon mission gis ngeen ko ça signé par le secrétaire général parce que man nekkuma fi woon maintenant facture baa ngi nii la facture est là Pastef a payé dix-huit million sept cent cinquante mille dix-huit million sept cent cinquante mille moom la moom lañ fa est-ce que leer na facture baa ngi nii c'est dans no livres moom la fay teg ca déglul de parce que bu ñu lay loué infrastructure bi da ngay joxe caution caution ba ils ont déposé la caution en dehors des dix-huit millions cent cinquante mille caution bi démb la ma directrice bi wax ne ma léegi def nañ inspection yëpp ba pare gis nañ ni yàqu ñu fa dara ma ne ko non waa Pastef du ñu yàq dara parce que danoo yaru mu ne man parce que caution bi dañuy xool ndax di nga fa yàq dara lii location bi la mais soo fa yàqee dara ci sa caution la ñuy jël defar ko mu ne ma def nañ inspection technique yëpp gis nañ ne yàquñu fa chaise defuñu fa dara tout est en place dañu leen di delloo seen chèque chèque bi ñu déposé woon pour seen caution dañ leen koy delloo parce que yàquñu fa dara mais million 18 millions cinquante mille moom dugg na ci keesu Sogip est-ce que leer kon ñu wax loolu waxuñu dëgg réew mi nag ku nekk dafa yore làmmiñam di wax. ñun on considère que dakaar Arena képp ku ko soxla mën na la ko jox xam nga bu njëkk Macky Sall xalaatoon ngeen yéen Macky Sall jël euh, Dakar Arena jox ko opposition est-ce xalaatoon ngeen loolu léegi man fii laa koy déclarer déglu leen ma de li may bëgg a wax fii laa koy déclarer opposition bi ku ci bëgg dakaar Arena wala nga bëgg la centre des ndax ndaxte foofaat foo foofaat am na espace parce que Dakar Arena moom jàpp naa ne diis na pour ñoom mais buñ bu fekkee Dakar Arena mille places yi mun ñu ko feesal bu dee mun ñu ko feesal 15000 places yi man mun naa jox instruction sama directeur technique et le directeur de l' exploitation pour ñu xaajal leen ko pour ñu ñëw def fa seen meeting est ce que dégg ngeen li ma leen di wax mën na leen koo xaajal. bu ñu leen ko xaajalee wàññil leen ko parce que bu ñu leen ko xaajalee mën na leen koo wàññil xaajal leen ko aussi bu ko defee ñu ñëw def fa seen meeting ñoom opposition bi yëpp képp ku ci saisir la SOGIP ñu jox la dakaar Arena nga ñëw def fa sa meeting bu ko defee nga ñëw feesal ko wala nga feesal ko nu ëpp sax ne ko waa Pastef feesal ku ci bëgg beneen infrastructure tamit soo ñëwee jox la ko dama ni réew mi soppeeku na dama bëgg sénégalais xam ne réew mi soppeeku na jaay doole bi jeex na li fi Macky Sall doon def jeex na. li fi Ablaye Wade doon def jeex na réew mi dafa nekk ci yeneen loxo dafa nekk ci loxo président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu dénk ko premier ministre mënuñu yamale leen Sénégalais yépp réew mi soppeeku na ñiy nelaw jóg leen ngeen yeewu xam ne réew mi soppeeku na foofu la réew mi toll pour mu leer donc ñun nekkuñ ci caaxaan yooyu Dakar Arena man mii bu ko dee loué damay fay gis nga man yaa yaa yaa deux mois samay promotionnaire yoo xam maa ngi ñoom ñoo nekk ndawoon université dañoo bëggoon def benn yendu xamuñu fu ñu koy defe wala ñu nekk ci discussion man leen mais ñëw leen def ko stade Ablaye Wade stade Ablaye Wade y a les espaces VIP ay espace restauration y a plein de choses euh, vraiment yoo xam si mun nañ fa am le cadre qu'il faut ñu ñëw ma ma accueillir leen offrir leen mais man mi leen ko offrir di directeur général damaa fay damaa woo directeur bi yore lool dama yore dama woo la la directrice de l'exploitation ma ni ko damaa bëgg a invité samay promotionnaire yoo xam ni mat nañ une trentaine au niveau du stade Abdoulaye Wade ñu demaale def football ci terrain annexe yi dañ koy loué ma ne ko wax ma lépp ñaata la may coûté mu wax ma lépp ñaata la may coûté mu andil ma ko mu jox ma ko muy huit cent mille ma fay ko mais parce que c'est pas parce que je suis le directeur général que je ne pas damay fay mais daman la tappala jeex na ci réew mi réew mi day jub jubal jubbanti foofu la réew mi toll fii xoolal duñu fi abal kenn stade bi stade yëg yëpp ñu aale du ñu lebale kenn maintenant on est en train de faire des efforts parce que aujourd'hui y a par exemple si on prend le stade Abdoulaye Wade j'ai reçu hier euh, une demande de la Gambie et des Comores Gambie ak Comores comme dañu am ay jafe-jafe ci seen stade pour jouer CAF ni leen seen stade bi c'est pas homologué seen stade yi mun leen fa jouer ils ont demandé à jouer au Sénégal dama leen koy jox mais dama leen koy yombalal lu ñëw avec la diplomatie sportive du ma leen ko abal nag parce que abale amul gratuité amul mais sama directrice de l'exploitation bi mu ñëwee sama bureau tey ci suba wax ma ko ne ma léegi yow nga ci xalaat DG ñoom nee nañ seen stade mun ñu fa jouer ñoom Gambie ak Comores dañoo bëgg a ñëw jouer seen match yi ma ne ko su ko Augustin Senghor demandé mais il faut mu jaar ci Augustin parce que man du seen interlocuteur nañ jaar ci Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football su ma ko demandé ma def ci lépp lu ma mën pour yombalal leen ko pour ñu ñëw jouer Sénégal parce que loolu dafa am diplomatie ci biir man responsabilité yi ma jël li ma am dama koy assumer mais nag ruube bi nañ ko bàyyi ay non danoo àll waa Pastef Dakar Arena loolu du dëgg Pastef xaalis bu bari lañ may gis nga 18 millions yii biñ ko fayee ba pare am na ku ne ma. premier ministre nee na dafa cher ah ma ne ko mais premier ministre moo ko expliqué lu tax mu cher dina xam lu tax mu cher gis nga événement bu mel nii xam lu tax mu cher nii yéen ñëpp moo ko waxee xam nga nee ngeen dafa cher 18 millions 750 mille xam nga dafa cher mais Dakar Arena 15000 places lay def 15000 places lay def gis nga 15000 places pour mu sedd comme salle bi ñu nekk nii gis ngeen ni clim yu bëri lañ fi def pour mu sedd imagine leen 15000 places nan ngay def pour mu sedd. c'est pas ces laa ñoom ñoo ko mën a seddal ay chiller la ñu yore chiller bi xoolal benn chiller bu ñu panle ça nous coûte quatre cent millions est-ce que dégg ngeen wax ji benn chiller bu ma panle man à Dakar Arena benn chiller je vous dis ma coûte quatre cent million te doo ko jënd fii Sénégal da nga koy commander pour mu ñëw donc bu ñu leen waxee prix yi da ngay ne prix bi dafa rëy bari te su ñuy def événement bu mel nii da ngay basculer tu bascules sur les générateurs doo jël courant Sénélec parce que Sénélec mën na couper te événement bi amul coupé amul coupé du début à la fin dañuy basculer sur les chillers sur sur sur sur les générateurs da ngay basculer ci générateurs yi te da ngay dem commander carburant ñu duyal la ko ba mu fees dell te dañuy consommer parce que les chillers consomment l'énergie non loolu c'est c'est c'est en vue d'être réglé parce que loolu ñu dañ ko fee fekk muy jafe-jafe boo xam ne lancé nañ appel d'offre ah lancé nañ appel d'offre on est en train même de faire mieux. On, est, on va faire une digitalisation. On va faire de Dakar Arena benn benn benn smart infrastructure lañ bëgg a def ba nga xam ni euh, ce sera une infrastructure intelligente ñoo ngi ci marché bi on est en de préparer l' appel d' incha allah bala moo yàgg boo fa dee organiser di nga xam ne lépp dëgg la voilà merci. merci euh, beaucoup. deuxième question sur quoi.